Bienvenue sur Salam Vision.

qui est prévu ce 21 mars 2021, euh, sept opposants seront en face du président sortant, Denis Sassou Nguesso, pour rappel, dirige le pays depuis 36 euh, ans. Enfin, la RDC a un nouveau président du Sénat et il prêtera serment demain en présence de plusieurs personnalités euh, du pays. mbokk yi ñu tënk ko si kàllaama Kocc population askan ñoom jamono ji ñu ngi ñaawlu ñàkkum ndox seen gox-goxaan yooyu ñu ngi war a xam waaye waa SONES ak waa SD ñu gëstu leen ñàkkum ndox bi nag indi nay jafe-jafe euh, fële ci biir euh, bi euh, li jëm si mbirum politique ñi nga xam ne ñoom ñooy organisation des droits humains ñoom ñi ngi woo nguur gi ñu mën a bàyyi prisonniers politiques yi ñoom Guy Marius Sagna ñoom Clédor Sène ginnaaw bi ñu leen tëjee si kaso bi nekk na mbir moo xam ne faral di indi ay jiixi jaaxa euh, ci biir réew mi euh, marié yow fële ca Pic fële euh, ñoom dañuy ne ki mooy Aliou Ndoye di ministre bi njëkk mbirum napp gi mu teg ci ndombal tànkam bitim réew dañ koy tegee fële ca Congo Brazzaville ñoom dañuy safa seen sànni seen i xob jëmale ko élection présidentielle Euh, ñaar fukk fa ak benn si war weeru mars bii di ñëw xam mooy Denis Sassou Nguesso na jàkkaarloog euh, juróom-ñaari opposants yoo xam ni ñoom ñooy xëccoo nguur gi RDC lañ koy tëjee euh, am nañu benn président Sénat bu bees ñu ñu fase nag waat ëllëg si teewaayu askan bi mbokk yi ñu leen di gërëm leen sant yeneen xibaar incha allah jërë ngeen jëf